ministre de la santé et de l'action sociale maire de la commune de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Dakar wala soxla Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow bëgg nga nekk ca mairie Dakar jaraaf yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow saltige yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow notable yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow frère yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow ndey ji réew yi Dakar ànd nañoo ak yow. Farba yi nekk Dakar ànd na ñoog yow ndey jàmbur yi nekk Dakar ànd na ñoog yow nee na ñu affaire bi yow la maam yi fukki pe jëg ñaari ay sey groupement famille mouvement yi nee na ñu Ablaye moo gën ci Dakar waa sant loolu la wax Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye yow la ñu bëgg nga ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye ñu bëgg nga ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la nga nekk ca mairie Dakar mouvement Abdoulaye Dakar moo ko bare nañu jóg taxaw ànd ak yow lebu borom Ndakaaru lebu borom Ndakaaru président Macky Sall sant nala la gërëm askan bi kontaan nañ si sa taxawaay ak sa liggéey lebu borom Ndakaaru Abdoulaye Diouf Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Dakar moo Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye soxla Abdoulaye Diouf la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye la ñu bëgg nga nekk Dakar jaraaf yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow saltige yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow notable yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow frère yi Dakar ànd nañoo ak yow ndey ji réew yi Dakar ànd nañoo ak farba yi nekk Dakar ànd na ñoog yow ndey jàmbur yi nekk Dakar ànd na ñoog yow nee na ñoom affaire bi yow la maam yi fukki pej ak ñaari ay sey groupement famille mouvement yi nee na ñoom Ablaye moo gën ci Dakar waa sant loolu la ñu wax Abdoulaye Diop Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow nga nekk ca mairie Dakar mouvement Abdoulaye Dakar moo bare nañu jóg taxaw ànd ak yow lébu borom Dakaru Lébu borom Ndakaaru président Macky Sall sant nala la gërëm askan bi kontaan nañ si sa taxawaay ak sa liggéey Lébu borom Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdou nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar. Dakar. Tosuma Abdoulaye Diouf Sarr waaw dañu am euh, euh, beaucoup de satisfaction kontaan lool di féliciter le maire Banda maire de la Patte bi ñu accueillir tey dem nañu Grand Médine ñëw fii Patte mais li ma seetlu mooy vraiment maire bi jubboo na ay population Grand Médine comme à la Patte mais population yi ni ñuy accueillir mooy tekki ne vraiment pare nañ pour voter ñu le 23 janvier 2022 muy loo xamante ne ñu ngi koy rafetlu mais waxtaan yi ñuy waxtaan ak ñoom daf ñuy permettre ñu xam seen i préoccupation pour mën ko intégrer suñuy programme boo jëlee Grand Médine par exemple wax nañ si problème assainissement ak problème régularisation foncière noté nañ ko danañ ko intégré si préoccupation yi xamante ne xam nañ ne population ñooñu ko exprimé monsieur le maire koy félicité parce que li ñu gis fii dal na xel dal na xel lool au soir du 23 y' a pas de doute que fii si Padoa benn Bokk Yaakaar dana remporter et la commune et la ville euh, suba danañu dem euh, fas Colobane Gueule Tapée gannaaw suba. ñu euh, ñëw Grand Yoff après envisager Parcelles Assainies mais Patte d'Oie il ñu dellu si parce que dem na ñaar des na ñaari étapes bi ñu waroon def mais heure bii mënuñ ko def il faut que ñu revenir fii benn après-midi wala benn matinée pour terminer le may wax ne euh, démocratie dafa ànd ak jàmm jàmm moo lal démocratie mënuñu def donc un processus électoral serein euh, ou bien un processus boo xamante ne dana génn résultat dans le désordre et dans la violence may lancer un appel à tous les militants de la paix pour que ñu jàppale effectivement cette dynamique qui soutient effectivement la paix parce que am na ñoo xamante ne peut-être bëgg nañu créer benn désordre boo xamante ne bu amee résultat bi du lisible ñi xamante ne wóolu lañ seen bopp xam ne mbir yi dafa war a jaar yoon pour que ñu xam kan moo gagné sans équivoque ñooñu dañu war a promouvoir jàmm ci dëkk bi en tout man xamante ne lépp lu amul jàmm dana nekk loo xamante ne vraiment bokkuma si bon nag jàmm moo lal démocratie bon maa ngi lancer un appel pour que tous les militants de la paix soutiennent ce processus yoo xamante ne mu ngi demander acteurs yi ñu engagé par rapport à la paix. Euh, am na loo xamante ne tam il est important que ñu noté ko euh, euh, liggéey bi ñuy def sur le terrain indi donc l'offre de programmatique. dem di wax ak population yi am na ñu mu xaw a déranger ba actuellement d'ailleurs euh, dégg naa ñu ngi préparer benn affiche bu mag boo xamante ne ñu ngi siy def photo Déthié Fall photo sa Seck euh, photo Habib Sy photo seen leader yu mag yi bind si on veut le changement xam nga ñooñu léegi élection locale yi intéressé wuleen parce que xam nañ ne population yi war nañ leen gannaaw léegi ñu ngi jéem a jël mbir mi di ko teg si beneen registre donc il faut que ñooñu taxaw population yi dañu bëgg des élections locales lisibles yoo xam ne dañ leen jox programme par rapport aux préoccupations des localités bu fekkente ne dañu bëgg un débat national sur d'autres thèmes nañu xaar bu mu jot bon cette affiche là qu'ils sont en train de préparer nañ ko dencaat parce que ñun waa Dakar li ñu bëgg mooy que ne leaders yi xamante ne ñoom ñoo bëgg Dakar ñu taxaw jël seen programme wane ko bu ko defee effectivement dakaar waaye choisir mais jël benn affiche on veut le changement photo photo photo Déthié Fall photo Habib Sy photo Moustapha Sy Jamil photo keneen ak keneen loolu c'est essayer de déplacer le débat pendant qu'on est dans les élections locales loolu était important que sénégalais yëg ko pour xam ne ñii leen soxal ce ne sont pas les localités mais leen soxal leneen la alors que c'est les élections locales il faut que ñu respecter les sénégalais et les sénégalais ñëw jox leen un projet projet boobu ñu bàyyi leen ñu choisir si de la manière la plus libre dans la panique dans, de ceux qui sont en face, ils sont en train de préparer une affiche pour mettre donc, les photos de leur leader national, pour essayer de déplacer le débat, pour ne plus parler d'élections locales et parler d'autres choses. Nous leur demandons de respecter les populations sénégalaises, de faire en sorte que les programmes se fassent sous des considérations locales et que les acteurs qui veulent effectivement donc le mandat au niveau local sur la base d'un programme et quil cessent le choix se faire sur la base des programmes et sur la base des candidats maires et non affichés des leaders nationaux que sont Déthiéfal, Idrissa Seck, je dis euh, Khalifa Sall, euh, comment dirais-je encore, euh, euh Moustapha Sy Djamil, euh, euh, et autres. Cette information, nous l'avons, mais il est important que faire cela, c'est ne pas respecter les populations à la base. Il est important que l'on respecte nos populations. Respecter les populations, c'est les laisser choisir librement les candidats qui sont effectivement en compétition dans leur localité et ne pas déplacer le débat sur des considérations nationales avec des leaders nationaux qui ne sont pas en liste dans les collectivités locales.